na may mën a Bousso ah mooy salange bi ah Qatar bi waaw Qatar bi <laughs> ah, moo xanaa démb souhaité nga joyeux anniversaire président Macky Sall ah moom de li ci yéeme mooy kenn da ko yëgul Sénégal kenn yëgu ko xam nga man sax foog naa ñu bari yëgal naa leen ko demoon naa benn émission di laajte naka la ku jiite réew fukki at ak ñaar hmm. ngay tàggoo ñaari weer kese des defi sa anniversaire xanaa waroon nañ ko mën a fete sax ah? nit ñi yëg ko Sénégalais yi yëg ko Sénégalais yi du ñu bari yëguñu ko woon. waaw mais hmm. nag ñu ngi koy ñaanal gudd fan. Hmm. gudd fan ba fekkee li mu tële mu gis ko fekkee ko ñun ñu koy doxal. Ah, ci ñaari weer yi ko dese boo ko doon sàkku dara ci moom mu jox ko cadeau anniversaire sénégalais lan la. déet moom kay mënatul a joxe cadeau ñaari weer yi de yi ci des liñ koy liñ koy ñaanal moom. Hmm. mu yàlla dimbali ko ba amal may ko kattanu. mu def lu neex sénégalais yépp mm-hmm. ndax mën na nekk mm-hmm. ndaxte tey sénégalais dañu nekk seen diggante ak seen bëgg-bëgg mm-hmm. te moom mu taxaw ci diggante boobu donc bu ci génnee rek euh, amaana euh, euh, baal dinañ ko mën a nekk ci processus su baal ko weesuwul kon yàlla na ko yàlla roof leeru jaam jaam bu jub bu baax ba mu delloo si xelam ba mu xam ni lii tey ñu dund ba ma fi ba tax ma tardé. Mm-hmm. jógee ko fii ci tribunal bi te xam naa di nga ci ñëw. muy bëccëg boo xam ni lañ fa wax ci droit euh, xa saal bi sax dafa fees ak i xale yuy jàng droit yoo xam dañoo ñëw pour teewee nag parce que il faut ñoom ñu xam ndax la ñuy jàng. Mm-hmm. am na njëriñ ñu continuer wala ndax dañuy dem defi docteur wala leneen. Mm-hmm. parce que métier droit daal yéeme na parce que gis loo xam ni. xel waru ko mun a xalaata àtte sax. Mhm. ñu di ko àtte ci tribunal. Mhm. waaw loolu nag moom moom président Macky Sall moom moo ko bëgg. Mhm. du bëggee mu jeex rek dina jeex. mais tey jii ñu lii ci tribunal euh, des ci ak euh, agent judiciaire de l'État maire waaw ci ay kaddu yoo xam ne dañ ko fa yëkkati te yow des fois ci plateau yi ma dégg sa yaram tàng sax bi ngay mujj wal fajri maa ngi dégg sa yaram tàng ba nga egg ci kàddu yooyu est-ce que du ay kàddu yu diis. maanaam comme yan un état bandit wala yooyu. ah waaw ñoom c' est c' est des c' est des bandits tey moom ay état bu voyou sax lañ fa gis parce que kuy def xam nga bandi mooy ki nga xam ni day nekk hors la état su demee bay falsifier ay documents di def ay faux usage de faux di ko dugal ci dossier di ko ci roof pour dabandi loo xamante ni daf ko defoon ñu juum xam nga ñun yàlla dimbale nañu ñu ngi woon Ziguinchor. Mhm. toogoon nañ ci jataay bi teewee. Mhm. ñu laaj. juge bi laaj amuloon publication amul woon publication mhm. parce que loolu ci loolu la juge bi sukkandiku ne leen gannaaw wonewu leen condamnation bi naka ngeen mën a waxee ni moom yëg na ko ak naka ngeen di ko signifier loo xam ni publier wu leen ko parce que nit ki bu ñu la publier même sooy marier sax dafa am publication des bans dañuy wone ni diw ak diw sëy nañu mhm. buñ condamné nit dañ naan diw condamné nañ ko dañ ko war a publier yaa ngi doon dégg ñu naan dans dix jours lañ koy publier mbir mi affaire bi tardé. Mhm. donc comme ñoom publier wuñu euh, euh, jugement bi. Mhm. mënuñu sukkandiku ci jugement boobu pour di ko ko notifier ba ay radiation di ci am mais dañoo dabandi loolu daal di yokk ci biir dossier bi benn faux boo xam ni. Mhm. Euh, faux bi newul woon ci dossier bi parce que nekkuloon ci loxo saaba si nekkuloon ci loxo kenn. xam nga loolu nag dafa ni fàng. moo tax vraiment ñun ñu ngi ñaan dans l' avenir euh, tribunal yi ñuy bàyyi euh, euh, kii yi journalistes yi ñuy filmer tribunal am na caméra dañu war a filmer kii yi procès yi mm-hmm. parce que c' est dans l' annales du Sénégal nit ñi ñoo ko moom comme le procès est public voilà comme le procès est public pourquoi mm-hmm. pas ñu bàyyi ñuy taal seen caméra bu ko defee du am ay kii moo wax après ñuy wër seen plateau yi di sonal nit ñi ak di wax mm-hmm. foo boobu ñu jël yokk ko ci nan lañ ko waxee dañu ne dañoo jël benn pancarte dem taf ko buntu kër Ousmane Sonko pancarte pancarte mel ni état bu demee ba naan bindoon naa pancarte taf ko ci buntu usmaan Ousmane Sonko buntu kër jàmbur noonu ci tafee pancarte loolu nu mu mën mooy lay gi tey mooy lay gi tey waaw léegi léegi lañ ko ne yow hmm. waxuma la sax mais yow bandi nga voyu nga parce que non seulement amoo dëgg mais da ngay wëlbatiku di falsifier ay dossiers parce que li li la li ko weddi moom mooy UC ba mu yónni woon nga huissier ba defa ni ba ma ñëwee fekkuma fa Ousmane Sonko ab gardien laa fa fekk. Mhm. waaw bu fekkonte ne kay taf nañ ko ci bunt bi kay xanaa huissier bi dana ne tafoon nañ ko ci bunt bi. te bi nee na gisul dara. de bi ñoom ñoo ko moom laa la ñoo yónni seen huissier. huissier bi weddi leen. huissier bi weddi ñoom la ñoom foo bañ dugal huissier bi weddi na ko parce que bis bi ñu waxee ne taf nañ ko bis boobu Ousmane Sonko mu ngi woon këram xanaa Ousmane Sonko du toog biir këram ngeen yor seen pont wala ak kol daaj buntu këram. <laughs> mu toog bi leen seetaan wala bu ngeen ko tafee ba pare xanaa téléphone amul wala caméra ngeen filmer ni taf ngeen ko ak fan ak fan ngeen jaar te ni fàttali ba ñu waxee ni taf nañ ko boobu ñu ngi barricadé woon buntu kër Ousmane Sonko. mais avec tout ça mooy jamono dañ ko barricadé nga xam ne kenn mënu faa dem. kenn mënu faa ku dul ñoom. jamono jooju lañ wax ni taf nañ ko fa. waaw yii yëpp pour candidature Ousmane Sonko. pour benn. mais yow est-ce que avec mën na nekk candidat. ah ok parce que yow Dame Mbodj foo leen toog koy défendre. Mhm. te yoon wi gars yi jël. pare parrainage bi ba tey jii ak àtte beeg falsifier ay documents. mooy wane ni gars yi moom fan ne ña nga fa mooy Ousmane du bokk ñoom moo leen intéressé yow nag lu waral nga gëm loolu. ñoom bëgguñu mu bokk. Mhm. ñun dañoo bëgg mu bokk. diggante bëgguñu mu bokk ak ñun ñu bëgg mu bokk euh, bu ñu gëmee li ñuy wax ni nguur yàlla moo koy joxe présent Macky Sall joxu doon boppam nguur gi. ñun am nañ yàqin ne yéene bi ñu ko yéene mu bokk ak yéene bi ko sénégalais yéene mu bokk te yoon terewu ko ko ndaxte ba tey ji may wax ak yow tey lañu démb lañu commencé déposer dossier yi tey ñu ngi àtte candidat xam nga loolu rek war na ne ni lii yenn wul maanaam ndaxte nit ki loo ko topp topp boo demee ba commencé déposer ay candidature war ngaa xalaat ni rëcc na la xanaa nga wàcc ko conseil constitutionnel wàcc koog sénégalais mm-hmm. mais moom moromam yëpp ñu ngi defar dossier moom ñu ngi doo dàqante ak moom biir te heure bu demee nag am dëgg ci ñoom parce que li fa am yëpp ay cuune yoo xam ñoom ñoo ko def ndax erreur yi yëpp suñu avocat yi di jël di ko plaider ñoom ñoo ko jox suñu abokaay yi mm-hmm. le fait que ñu nit ki nekk le fait que nit ki nekk ci euh, le fait que nit ki nekk biir tribunal le fait que nit nekk biir biir nga jàpp ko mm-hmm. yóbbu ko kaso ba pare di ko wër mm-hmm. <laughs> mi ngi mi ngi wër kuy vibrer te mooy vibrer. egg nii may mën a continuer may mën a daan na mën ay ay réer la ay nam <laughs> kii moom sama ma du ma moom keneen la foofu am na ay perturbateurs nag am na ay perturbateurs agence judiciaire moom wax dëgg yàlla mbubb mi ñu ko solal moom ëppul daa seere mbubb mi moo ko jotul. waaw mbubb mi dafa xat <laughs> moom moo tax xamul place am. <laughs> parce que parce que moom amul droit dagg défense. parce que défense moom day wax li nga xam ni moom lay wax pour génnee ci client yow kay comme yaa attaqué yaay état. da xaar sa wax bu jotee yow it nga wax dugal ko moom mu wax génne boppam mais mënul wax nga koy dog. loolu amul plateau yi sax loolu amul ci bay am tribunal nga xam ni juge bi moom moo yore moo yore moo yore kii bi police de l'audience donc moom il est mal à l'aise ah ba mu fa demee daa futti woon ay dàllam xam naa bi paa nag ku munul si mi daal yi dese carax parce que <laughs> xam nga dakaar moom xale yi dañuy seetaan nag hmm? donc tribunal baa ngi fees dell déjà gàcce nga la am askan wi parce que nit ñi euh, léegi euh, benn avocat wax na ko nee na Ousmane Sonko dafa tax ñëpp xam justice ak loi léegi article yi sax nañu dañ ko mokkal ah article cinquante sept L nangam L quarante et lii léegi ñëpp lépp la ñuy waxtaane ndaxte moom depuis deux ans mm-hmm. depuis deux mille vingt et ba léegi mu ngi ci yoonu yoon ñu yéegi ki di wàcc di wax ay procédure mais pour ñëwaat rek ci faux bi nga xam ni moom la ñu def mm-hmm. ba indi fii yëpp nit ki mënoo ko jàpp soxna ma jigéen da nga koo jàpp parce que ba tey jii ma wax ak yéen hmm. Ousmane prisonnier hmm. mu ngi Cap Manuel bi ñu ko jàppee ba léegi mu ngi ci seen loxo hmm. pour nga gis ko ñoom ñoo lay may nga gis ko kon kooku kay boo yoree bataaxal bu jëm ci moom caaxeeti looy wut këram walla looy wut ay préfecture Almadies wala Dakar Plateau lu huissier di dox garde pénitentiaire moo koy surveiller xam fi mu ne ba noppi di ko wër moo ko téye jox leen ko ko. Ah mm-hmm. mais li tax du ngeen ko ko jox parce que su ngeen ko joxee aatu mu leen réeroon day feeñ. Mm-hmm. <laughs> parce que ñoom dañu ne fi ne nii dafa réer. aatu daa réer daa waaw. xamuñ ko moom contumax la. <laughs> xamuñ <laughs> moom nee nañ contumax la. Mm-hmm. contumax mooy kuñ gisul. d'accord contumax boobu ci la ñu langaamu pour ne ko doo bokk. léegi bu ñëwee ne ko jàpp kayit bi dañu naan dañ koy gis léegi ne danoo band seen i bët di wër di wiiri pour bañ koo gis. moom nguur gi xoromu nañ. loolu xoromu na dëgg yàlla fee moom amoon nañ fa épisode yu baax yoo xam ne. Mhm. buñ ko filmé woon. dina nekk série yoo xam ne dina bëri ay vues ci YouTube bi. <laughs> d' accord may bu na macha allah mais man c'est que man sama problème ak agent judiciaire de l' état. Mhm. Euh, moom euh, parce que bu fekkee ne état ngay liggéeyal man jàpp naa ne état mënutoon a perte ci mbir mi. Mhm. Euh, li ko intéressé rek moo war a doon dëgg du dëgg. ne serait-ce liggéeyal peut-être nit. loolu est-ce que def ngeen ci kii parce que bu fekkente ne bi état moom état du nit. Hmm. yow da ngay ñëw pour liggéeyal état. léegi la fait mu am féete ba mel ni dafa am ñu mu àndal. Hmm. loolu aussi tamit du problème ci wàllu justice parce que tey jii sunu justice bi beneen euh, gis-gis la ci nit ñi am. dëgg la loolu tey jii justice bi fi mu toll nii maanaam nit ñi kóolute gi nga xam ne parce que tey jii man dama doon wax ne même fi mu toll nii tey bu ñu joxoon état dëgg. nit ñi moom mënuñu accepter dëgg gi. non parce que loolu mooy lii yéeme mooy état mooy yow man. waaw administration justice li ñu nit ñi bokk. mooy mhm. état. Mhm. dañu jaawale nag état ak gouvernement. waaw gouvernement moom politique la. Mhm. nguur gi mooy koy fal. ndaxte état ñi ciy dem di ci liggéey. du Macky Sall moo leen di fal. ay fonctionnaire lañu. tey ci liggéey dañoo jàng am xam-xam nekk si am seen i diplôme mais gouvernement moom président mooy xool ki ko neex mu fal ko wala mu folli ko mhm. mais fii nag euh, président Macky Sall dafa jël gouvernement bi ak état bi def ko moomeelam def ko moomeelam état bi li mu nekk di doxal nii moo tax dañ naan Ousmane Sonko dafa am problème ak état Ousmane Sonko amul problème ak état du Sénégal dafa am problème ak benn camp politique mhm. boo xam ni moom moo yor état yor doole état te état nag indépendant wul fii parce que agent judiciaire de l' état normalement moom dossier bi sax yoonam newu ci woon parce que moom dossier yi muy bokk mooy dossier yi nga xam ni dafa laal kopparu askan wi mm-hmm. mu taxaw pour saytu mm-hmm. pour askan wi bañ a ñàkk mm-hmm. moo taxoon mu bokkoon ci dossier Karim Wade dossier Khalifa Sall parce que foofu dañ ne woon mbiru koppar la mais fii mbiru penaal la di nit la ak ak ak bopp ak ak ak justice Ousmane Sonko mooy layoo pour lu tax ñu génne ko ci ci ci ci ci liste yi Euh, Ousmane ko gagné wala perte Sénégal du ci perte du ci gagné. ci normalement. Mhm. normalement. waaw Macky Sall sax amul lu ciy perte. waaw Ousmane ko bokk wala bañ a bokk amul lum leen di wàññi. bu dee lu jaar yoon. mais nag mais nag koppar bi ñoom koppar bi ñu siif. Mhm. il faut nga xool foofu koppar bi ñu jël ñoom. te làq ko te ruub ko te jël ko moomuñu ko. waaw <laughs> loolu foofu la problème foofu mooy problème. d'accord léegi loolu lay défendre moom. léegi est-ce que tamit. administration bi nga xamante ne bi dugg nañ ci mbir mi parce que euh, DG bu fekkonte ne bi defoon na li nga xamante ne bi tam ñoom bu fekkoon ne comporté wu nañ euh, niñ war a comporter woo xam nga kon lii warta sax defe naa ne waruñu ci woon a yegg si wala déedéet. waaw euh, parce que kon bu boobaa joxoon nañ ko ay fiche am dem na defi parrainage def na def li ma jigéen bu doy lool nga bëggoon laaj yàqu nga xar naa ko laaj booy ba wuti beneen question <laughs> moom moom la concentré wu di di ma xoolal mel ni daan lii laa bëggoon a laaj wutiwaatal beneen <laughs> est-ce que kon est-ce que kon euh, tey yëf yi dina yegsi bi est kon nekkul ni ñun dañu am problème administration beeg lépp léegi ñoom dugg nañ ci li nga xamante ni bi moom la ñuy wax politique waaw loolu lu ñu war a réformer la ci yàqu-yàqu yi nga xam ni boo commencé wul ci président Macky Sall mm-hmm. mais ñu ngi koy dund ci régime am mm-hmm. yàgg na commencé mooy administration ñun suñuy waajur ay man sama papa administrateur la woon préfet la woon mm-hmm. su préfet mm-hmm. seen liggéey mooy commandement territorial mm-hmm. état lañ fi nekkal mais au service de la population ah. seen yoon warul nekk sax ci politique c'est vrai que ay sénégalais lañ mais soo opté ah. sénégalais yi nekk ay millions de sénégalais mais huit cent mille kese ñoo ci nekk ay fonctionnaires xam nga loolu sac la ah nga nekk jàngalekat wala nga nekk beneen métier policier wala leneen yéen a war a yem dayoo mm-hmm. dañ leen war a génnee ci politique mm-hmm. boo bëggee politique da nga war a am sañ-sañ ne damay politique mais damay arrêté sama fonction ah. dem politique soo paree nga ñëwaat mm-hmm. mais waroo boole ñaar yi ah. mais fii nag ki nga xam ni moo leen di jox ordre mooy ministre de l' intérieur ministre de l' intérieur day politique kon moom su ñëwee jël DGE Thiendella Fall ne ko defal lii ca ndeelu su ko yàlla dimbalewul mm-hmm. mu xalaat démbam ak subaam mm-hmm. ak euh, ak ak avenir am ak i doomam mm-hmm. boo moytuwul dina wàcc yoon parce que day ragal perte poste boobu mu yor parce que nag cendee na nag mu waree dem yàgg na ah ndax moom dafa yàgg ci ci post bi mu nekk te en général état du bàyyi kenn fenn te nekkaloo ko fa poste yi moom day bouger ñun ñii moo tax ñu nekk ay doom yu mbedd mbedd Sénégal yi ñun suñu enfance yépp ñaari at yu ne dañ ñuy yóbbu ci benn dëkk. Mm-hmm. ba tax na suñu xarit ñu màggandoo loon sax xamatuñu fan lañ nekk. dëkk yëpp def nañ ko dañ lay affecté fii affecté la fee affecté la fe parce que boo demee ñu la joxee tool yi nga bañ. Mm-hmm. dañ la fay jëlee yóbbu la ñu yóbbu nañ ñu ba tënduk <laughs> sama papa yóbbu nañ ko bët tënduk. Mm-hmm. boo di aussi boo di boo di Ziguinchor. c'est mag ma ci ma ciy nuyuwaa tënduk ndax yàlla dimbali na ma ba. tax ma màgg ak ñoom. am ay valeur yu ma am tey ak sama deret man boo waxee Casamance rek day mel na dang ma laal parce que dama fa bokk mais loolu li tax ñu koy def ay fonctionnaire mooy defuñu lu ñu bëgg mais fonctionnaire bu nekk fenn di leen jox ci suuf yi di leen jox ci mbir yi nga ànd ak ñoom ci ay bagage boo muutuwul doo fa jóge doo fa jóge voilà donc li xam ni DG def na ko lu ñaaw la mm. ci nderu administration parce que moom rolam mm. du xool Ousmane Sonko wala Maimouna Bousso wala Betty DG yi Sénégalais yëpp la war a yemale ñëpp bu ñu ñëwee leen war a jox seen ay fiche moom bu ñu ko waxee mu ne dem leen justice ngeen lijjanti ko sama yoon nekku ci mais moom dafa remplacer justice remplacer conseil constitutionnel. Mm-hmm. indil ñu wiiri wiiri bi yëpp. mais nag comme li mu wax man jàpp naa ni tout ou tard. Mm-hmm. tey lépp lu mun munti jóge ci tribunal tamit bu dee lu baax la Sénégalais yëpp dinañ am dellu am yaakaar ci seen justice mais bu dee lu baaxul la tamit dañ koy attaqué waat. conseil constitutionnel. kii cour suprême du moins. Oh, parce que moom ñoom ñoo mën a décider ci ñi nga xamante ne nii moo di candidature yi ñu war a bokk ak ñu warul bokk yaa ngi ne da ngeen ni toppaat mbir mi même su fekkee ni joxuñu leen dëgg te toll nañ ci jamonoy dépôt est-ce que bu boobaa du fekk yi fi wees tamit. di ñun jàpp nañu du wees parce que dinañu delluwaat cour suprême bu nekkente ne. dañu joxuñu ñu dëgg. mais yi dañuy limité. Euh, dinañu de dem aussi déposé hmm. ndax ñu dinañ déposer nag conseil constitutionnel. Hmm. ah waaw waaw. mais bu leen ko retourné nag. non mënuñu ko comme ni leen def DG. def leen ko def leen ko caisse de dépôt. bu ñu ko retourné comme ñoom daa am ñi nekk fee naan leen def leen ñuy def bàyyi leen ñu bàyyi. xam nga tey moom dama ko ñëw ak samay ree bugguma woon a mer. tey moom <laughs> mais li am caisse de hmm? xam na loolu. Hmm? teguwul fenn yow xam nga mais lu mel noonu bu amee leneen mun na am aussi. non conseil conseil constitutionnel c'est le juge suprême. conseil constitutionnel bu ñu recevoirul. Hmm. bu yeboo nga xam ne sénégalais bu nekk taalal sa gàddante. Mm. waaw taalal sa carte d'identité te nga génn ci mbedd bi nga xam ne Sénégal amatoo fi droit parce que conseil constitutionnel c'est pas ça veut pas dire que daf ñuy nangul mm. que day tax ñu nelaw ñu ne jàll nañu parce que xeex bi ñun ñu ngi ci kanam parce que gëm nañu ni fii ba le vingt cinq février euh, lii defar Sénégal du yomb parce que lii Ousmane ko bëgg yombul mm-hmm. parce que système la fi bëgg a jële ah déjjë ci guy yombul gis nga guy di ko dagg ba pare sax mu saxaat mm-hmm. ndax day fekk reen yaa ngi ci biir donc lii du lu du yomb ñun xam nañ ni du yomb mais conseil constitutionnel nag li nga xalaat yow man ñaanuma ko yàlla ci àdduna te xalaatuma ko ndax dama jàpp ni bu conseil constitutionnel ne hmm. non non ma ni ñun kenn conseil constitutionnel mais moom mooy moo moo moom moo yor mbaxane bi ci kaw yaa ngi mille dégg 2011 2011 conseil constitutionnel dafa am sénégalais yu bari yu dee woon ci mbedd mi ndax dañ doon xeex Ablaye Wade troisième candidature conseil constitutionnel daa di wëlis ne Ablaye Wade day bokk ñëpp dem ànd ak jàkkaarlook moom bëri ndax amuñu ci pexe non ba mu waxee day bokk amuloo ci pexe xam nga koo xamante ne kilifa ci kër tey sol tubéy bis bu woddoo sër lu la fa bàyyi yaa fa def sa bopp hmm. ñun jàpp nañu ni conseil constitutionnel jamono ji moom moo nekk fi nga xam ni ñun ñëpp dañu nangu ne ci élection kenn du ko jël ci mbedd mi kenn du ko jël ci xeex kenn du ko jël fenn ci élection nga koy jëlee te élection yi li la koy jox mooy conseil constitutionnel moom mooy teg loi charte bi ne diw ak diw ñoom la ñu valider ñu bokk dafa war a jël suñu candidature bu doon benn pièce la sax waaw mais ki bañ sa caution dina jël sa candidature. conseil constitutionnel bañagul suñu ko. non non fële euh, caisse loolu moom la saa wax léegi xam nga caisse de dépôt ki fa nekk Issa Sall la tudd Macky Sall moo ko nommé. Mm-hmm. yaa ngi dégg dañ ko fal. mu nekk APR. te gis ngeen ko wax njaaxum yi mu fi waxoon Ousmane Sonko. wujju la ah waaw mais nag mais nag. Euh, wala institution yi ñoo dul benn nag il faut ñu am foo xamante ne fa la ñuy yemale mbir mi nag. àdduna loo gis rek dafa am fu mu yem. Mm-hmm. xam nga yow sëriñ bi nga yaakaar. Ah. boo demee am noo ko fekk mu toogee boo continuer di jébbalu. Mm-hmm. yaa pare tey sa bopp conseil constitutionnel mënuñu leen yemale. naam am nañ luñ leen wax de. Ah. mais munuñu leen yemale ak ya mm-hmm. wala ak Sénat wala ak CDC. parce que ñoom ay magistrat lañu. comme tey magistrat yi ñu dem tribunal. naam ñu bëri amuñu yaakaar mais danoo dem ci seen kanam. su avocat yi sol seeni robe plaider mhm. ndaxte justice la ñun tamit conseil constitutionnel dinañ soluwaat ba jekk ñu war a yóbbu dossier danañ yóbbu dossier te lu yàggul dara di nga ci dégg dara danañ ko dem jox conseil constitutionnel même bu matul nag mm. te nag san ne veut pas dire que bu ñu ko ko joxee matul du mat danañ ko ko jox parce que ñun conseil constitutionnel moom mu ñu permettre ci article L 121 mhm. fii ba le 26 décembre am nañu droit mottali donc ñëpp dañuy yóbbu mhm. bu manqué ngay mottali ndànk-ndànk ngay mottali donc fii ba le 26. jàpp nañu ni tey la lan tey la 12. donc peut-être bu ñu naree def ñaanu ma ko yàlla j'espère que juge bi dina wax li Saba si fay waxoon mm-hmm. mbir mi jeex fi. est-ce ñu def appel encore ñoom it. waaw ñoom mën nañ def appel. Mm-hmm. moo tax ma ne la tey la 12. bu ñu defee appel ñoom 8 jours la ñu am donc fu nekk le 20 lay dem tombeel mm-hmm. jàpp nañu ni balaa le 26. mbir mi mën naa féete boor te ñun moo tax ñu jàpp ne. Euh, président Ousmane Sonko dina bokk te xam nañ ni bu bokkee dina gañe ndax looloo coow mais ñu bëri dañuy laaj benn question yow boo ko passé. waaw da nga am sa mouvement. maa ngi ngeen créé Lacoste <laughs> sa engagement ci Ousmane Sonko. Mhm. lan la quoi réellement parce que dama gis ne sa engagement sax am na ñu mu ëpp ñu gën a jege Ousmane Sonko. Mhm. yow sa engagement mu ëpp seen bors lan la ban yaakaar nga am ci Ousmane Sonko ba mu jarale lii lépp. am na tey sax xaw nga dal mais plateau yi dama la doon gis ngay mbëkk bu baax <laughs> waaw. il faut mu dal eh, waaw engagement bi lan la <laughs> may mu <laughs> waaw ne xam nga nag bon engagement bi moom du engagement ci booru Ousmane Sonko. Mm-hmm. parce que ku ma xam nag xam nga ni engagement bi contre injustice dama ko mus a am. Mm-hmm. yàgg nañ ko fi am moo xam nii lañ fi xeexalee woon Karim Wade ah, ba ñuy woowee ay karimiste xeexal ko fii Khalifa xeexal ko fii ñi fi nekk victime ñëpp. c'est que nag dañu tànn Ousmane Sonko comme candidat loolu dafa dafa dafa différent parce que ñun mosuñu am candidat présidentiel. Mm-hmm. li tax ñu tànn euh, président Ousmane Sonko parce que dañu ko xam mu wax ñu programme am wax ñu yéeneem. Mm-hmm. déjà première yéene bu mu d'accord ak ñun mooy indépendance de la justice. mooy bis bu ma jëlee réew mi justice dama koy libéré. Mm-hmm. yii ñuy xeex ñun mu naqariñ dootu fi amati. séparation du pouvoir. et puis nag bétti dinaa fi ñëwaat ñu waxtaan ni mu d'accord ci jigéen ñi ah lu bare loo xamante ne ay loi la réforme yoo xam ne xëy na ñoom saa boobaa dina neex yoo xam ne d'accord na pour yokk ko ci droit de la femme non xam nga code de la femme de <laughs> code de la femme code de la femme code jigéen ñi dañ ci bare ay problème ah te loolu Ousmane Sonko dafa nekk koo xam ne dafa fare pour Euh, xar ci tànku tubéyam mm-hmm. ak tamit moom am na pexe pour déjà rek fiscalité bi mm-hmm. ñaata milliards lañ ciy perte mm-hmm. yoo xam ne mun nañ ko delloo si sénégalais xam nga am na ñu bëri dañ naan la lii doxul lii doxul mais nan lañ koy defee moom xam xamuñu ko mais moom xam na bu jëlee réew mi déjà ci ñi nga xam ni du ñu fay l'impôt te teguñu ko fenn lu dul nekk ay copain copine bu ñu dalee fay l'impôt donc hôpitaux yi dina am matériel am ay médecins. macha allah école yi abri provisoire dina ko jóge nan la leeral ba xaalis bi jógee fee de xaalis bi ñoom Cheikh Yérim ak ñoom kii di wax. xaalis boobu moom balaa muy jël suñu réew kenn na ko leer xaalis boobu moom boo bëggee dégg-dëgg man mi maa ko encaissé gis nga moom. Mm-hmm. man ak xale yi ci internet bi ñoo encaissé xaalis. <laughs> Mm-hmm. waaw parce que ñun ay murit lañ te nee nañ xaalis bi ci murit yi la jaar. <laughs> Mm-hmm. donc xaalis moom bu amee. ñun murit yii. xëy na ñun ñoo yore xaalis boobu. waaw ndax xaalis boobu moom sëñ Mountakha gisu ko Mm-hmm. Ousmane Sonko gisu ko comme nag dañ ne ko jox ci communauté mouride te ñu bokk ci mm-hmm. gis nga ñu fan yi ni ñu yànjee mm-hmm. ñun ñoo gis xaalis boobu xam nga loolu wax mënu koo gën a gaanu euh, ci sareet parce que yow Cheikh mu wax na wax bu rëy noonu. Mhm. benn député wax ko. loolu xanaa ëpp na une semaine depuis le cinq la ko député bi waxoon. Mhm. procureur autosaisir wul benn yoon parce que Ousmane Sonko la laal. waaw mais barki démb saa Diop dafa ah. mbiip rek. waaw tey mu ngi ci kaso bi. pour wan leen ni la justice bi fi nekk moom. Ah, dafa jégg waaw wooyee ko wooyee ñee ah. ah du du accusation rek la. Mhm. procureur moo yeewu te plainte amul de. amagul boobu. procureur moo yeewu autosaisir ne ko càpp cëpp mais ñi ñoom dañuy saxaw. tuumaal Ousmane Sonko ak communauté Mouride. 12 mhm. milliards yoo xamante ne musóor yi sax génn ci. wallaay ah. ah te suñuy poste. musóor yi musóor yi ñu denc musóor yàggoon la ci armoire <laughs> donc comme ça. Mhm. te puis dara du leen ci fekk parce que Ousmane Sonko la tudd. ak ah mhm. élection bu nekk defoon nañ ko fi temps Tulo Oil. 2019 ak yeneen i yeneen. Mhm. donc pour wax rek ne. Euh, ñun dañuy continuer. garder garder dañuy continuer garder espoir. li nga jot a bàyyi je rappelle da nga jóge tribunal ñëw fii uniquement pour émission bi est-ce qu'il y a de l'espoir. man de jusqu'à ñu ñu koy waxee l'extinction du soleil. Mhm. man damay continuer gis nga man même bu élection amoon. Mhm. suba ñu ne liste bi Ousmane Sonko bokk ci man gëm naa ni 2024 Ousmane Sonko moom mooy gagner élection yi. Ah. parce que sénégalais yi ñoo ko ko bëgg a jox. ba keroog bi mu ñu nee dem leen jëli suñuy parrainage ñu ñëw jox ñu teraanga yi ñu ko dencaloon mm. te sénégalais nee nañu Ousmane Sonko yow la ñuy voteel wala ki nga bëgg ñu voteel ko xam nga loolu wax boobu jeex na léegi nag bu mbir mi buntu la ak fenêtre soo ñu tëjalee bunt bi ñu jaar ci fenêtre bi ubbil suñu bopp buntu bi <laughs> kon nañ ko rafetal ñu bàyyi ñu ñu jaar ci bunt bu mag bi mm-hmm. ah que mm-hmm. nag euh, Euh, Sénégal mérité na loolu passation de service bu jaar yoon mm-hmm. Macky Sall recevoir saa njóogu ci diggante bi mm-hmm. mu fecc kanam gi reetaan loo ko <laughs> ah àdduna amul solo ah, ah, jërëjëf bu baax ko maa leen di man maa leen di gërëm di leen sant di di am kontaan te di wax sénégalais ni ñu continuer am yaakaar ndax nit soo bëggee dara mm-hmm. euh, waroo yaakaar ni lu la yàlla nangul mhm. nit mën na la ko xañal te mbir mi Ousmane Sonko bi loxo yàlla da cee nekk parce que tey le douze douze comme ni ñu koy waxee gis ngeen euh, lu lu ñu def lu ne daal mhm. am na lu ciy dugg ci biir te vingt quatre la te la ñuy xëccoo deux mille donc yooyu yëpp bu ñu ko ah. xoolee daal nañ ah xam ne deux mille vingt quatre moom mhm. ala kulli al yàlla noppi na ba pare kon la sénégalais yi maa ngi ñaanal ñëpp ñu nekk ci jàmm merci te ñoom seen nguur le 24 février lay yem. lay jeex 12 may mën a bu sa di ko jaajëfal bu baax di ko gërëmaa ah. sant bi tamit rafet na macha allah. kon di la ñaanal rek suñ borom yokk la wér sàmm la aar bu baax a baax. yaa xam loo bëgg ci réew mi yàlla na la ko suñu borom defal bu dee lu gën ci ñëpp la. kon ñu lay gërëm bu baax. allez may mën a merci beaucoup. merci beaucoup ci disponibilité bi sacrifié na woon ba ñëw. en kontaan nañu bu baax a baax.